bolu njëkk yi ko jox waa barsaq ya nekk njaareem sëñ Asan mu ne ko Mbàkke mu daa di ne ko ku la jox bool su ëllëgee man Sëriñ Fallu danaa ko duy ba mu fees jox la nga jox la jox daa bay maam sëñ na bu njaay sëñ Fallu nga naan ko sëñ Asan mu naan ko Mbàkke mu naan ko ëllëg yomal xiyaam ku ko am bool dootoo ko ñàkk waaye ku ko fa ñàkk dootoo ko am la ilaha illallah faal Musa fa la ilaha illallah la ilaha illallah faal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 والطف بنا وحاوينا وكن لنا وهب لنا حسن الختام من ربنا وشليان على نبي سما صلى وقت bi hajjatu kulli muslim ñoo ngi siyaar mbokki jullit yi di yeesal suñu nuyoo ci Cheikh Mountakha Mbacké xalifa général kullu murid di siyaar Serigne Cheikh Jëmm Fall di siyaar njabootu Serigne Touba gépp ak njabootu maam Cheikh Rahim Fall gi di siyaar nag suñu jëwriñ Cheikh Mouhamadou Fadilou Fall ibnu Serigne Assane Fall Mati Bal ci liggéeyam bu sell bi muy boole màggalu Serigne Touba yi yàlla dogal na tey la ajjuma ñu tàmbali liggéeyu Serigne Touba bi muy boole màggal gi nan ko daan waxee woon daaw lañ koy waxee waat ren rek liggéey la boo xamante ni Serigne Fallilou daa waxoon Serigne Assane ne ko Serigne Assane ne ko Mbàkke mu ne ko Serigne Touba nee jox ndab bu ko jox ko la doxoon foofaa nag ko fa am ndab dootu ko fa ñàkk waaye ko fa ñàkk am kon nag liggéey booba moom lañ yor nii di ko doxal ñoo ngi nii nag jóg ngir dem ci njabootu Serigne Touba gi kenn ku ci nekk li nga ci war a am ci ay duusi ñu jibal la ko liggéey bi nag liggéey la boo xamante ni yàgg nañ cee wax ba daanaka damay wax ni jërëtul leeral ndax lu ñëpp xam mëtatul leeral ndax liggéey Sëñ Tuubaa boo koy def ba noppi am loo ci leeral day mel ni da ngaa gis sa jëf te ñun jëfal Sëñ Tuubaa doo nga ñor ndax ndigalul Sëñ Fallu da ko ni Sëñ Asan Sëñ Tuubaa ma wax ni ma naa la wax li la war ci màggal gi mooy joxe ay ndab kon nag ñoo ngi ñaan ci dara ji Serigne Touba jëriñam ju sell ji muy Cheikh Mamadou Falilou Fall sama borom defal ko ndam ak njaboot gépp ak rakkam ak doomam ak donga yëpp li ñu namm nag mooy Serigne bi defal ñu lu kawe njot muy xéwal yu ban baaw yu ñu ko mën a moom daal bég nañ lool di wax ni li tax ñuy def lii mooy bëgg ku ko gisee dolliwaat cee soññeeku ci liggéey Serigne Touba bi àgg na ren nag ci 7 millions te dërëm ak ñaar dërëm lañ dajale ba mat ko la Serigne sama borom waxoon rek Serigne Touba sama borom may na ma loo xamante ni saa su ne dama koy gën di may mooy Ahmadou moom mu tànk ginnaaw tànk kanam rek la am lii nag wane na ko saa su ne rek di gën di yokk kon nag ñoo ngi ñaan ci dara ji Ahmadou Bamba Xaadimu sama borom defal ñun ndam ci barkeb ajjuma gii nga xamante ni mooy moo gën ci bis yi saan gii ñu tàmbali ko ci nag tàmbali ko ci kon yàlla ñu Sëriñ Tuubaa defal ndam ci dara ji te ñu yàgg ak Cheikh Mountakha mu yàgg fi loolu te wér di yalwaan taalibe yëpp ak murit yëpp ñu yalwaanal ñu jëmi Sëriñ Tuubaa ji ak sama borom yàlla ak maam Cheikh Ibrahima Fall ñu yàggal fi Cheikh Mountakha ndax yàggam fi suñu njëriñ la ñun ñëpp ci daraja yi Sëñ Bamba jërëjëf assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu rabbi bima yasrahu alhana juróomi takk la macha bool bu ne am na kubéeram juróom-benni booy yu ndaw yu ñuy séddalee yi. ah kon kooku nag yokku yokku yokku. waaw yokku waaw yokku bu bu bu déwénee mën nañu ko war rek. waaw yi itam ci yi itam ci la bokk waaw. bu déwénee mu yokku rek waaw mu yokku alhamdulilah ndokk yàlla ndokk. sëriñ Bassirou Mbacke moom sëñ Fallou. alhamdulilah. lu ñu ne ay dab daa mel ni ci màggal gi. waaw waaw dañoo yi ñu ngi koy jox suñu mopp laan ay juróom waaw so yàlla juróomi juróomi bool la waaw juróomi bool la yu ànd seeni kubéer ak juróom-benni palaat ak ak ñaari bitéeli parfum ren da cee boole parfum nag ngeen ñaanal ko bu baax a baax yaramatam daa surante ngeen ñaanal ko bu baax a baax amin amin amin amin amin amin si rek la sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Touba xalifaam mooy sox aji maam Bousso moom sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Touba ci moom lañ jëm def koy boolam bi ñu fi daan indi rek booli sëriñ Fallou Fall yi moom sëriñ Assane Mati dafay def bu joxee ki fi nekkal sëriñ Touba ay ndabam ba noppi mhm. mu dalewaat ci li dale ci xalifab sëriñ Modou Moustapha mhm. ba ci xalifab sëriñ Mortada mhm. xam ngum xam ne nag ci bir fofu yi nga nek ndax sëñ samat nga fi nekkal motax mu tabal la ci bir liggey bobu ñu diko fi at mu ne muy cërub serigne Abdou Samad ci bir doomi serigne touway niñ ko joxe serigne mohamed Moustapha ba ci serigne Mortada sëñ samat ne ci bir loolu moy sababu indi giñ ñu koy indi fi ci bir kër gi nonu ñu koy yobbo ci sa kër bokk yoyu ndax mom xamewul ci njabotu ko bi diw ak diw ñepp diw la leen jappé ko ci japp rek neen loolu mooy sawabu liggéey bi kon indeeti nañ ko juróomi bool yu mag la am nay kubéer ren dolliwaat ci bool yu ndaw yi ñuy séddalee moom xaajub du seen moom tam juróom-benn ñaanal ko bu baax a baax eh, lii tam nee na lekk ko lañ la boole ko ci biir liggéey bi nga ñaanal ko ñaanal dongo yi muy àndal ñëpp ci barkeb Sëñ Samat li mu yéenee liggéeyal Sëriñ Tuubaa mu am ci lu kawe njortam te wér nag ndax jamono yi wéré digi jege na ko lool waye nga ñaanal ko ci barke sëriñ samat mu sori ko lool ci barke sëriñ tuwa mi samam loolu la mo doon jéego yi tànki Serigne soxna si ñu bokk ko Serigne bi fay ñu amin amin amin amin amin mbàkke amin amin amin mbàkke amin امين يا رب امين يا رب امين امين امين يا رب امين امين امين يا رب fii moo di kër Serigne Mouhamadou Habib moom Serigne Abdoulahi borom dër bi mooy xalifa Serigne Abdou borom dër bi këram gii nag moo nekk ci pencum Serigne Chouaïbou mooy këram gu jëkk ci pencum Serigne Chouaïbou mooy xalifa Serigne Abdoulahi borom dër bi moom borom Touba waaw ci bokk bi nga bokk ci sëriñ bi tey nag da ngay sëñ Abdoulaye ci jataayam booy yi booy sëñ Abdoulaye mhm. ndab yi sëriñ Fallou moo ko digaloon woy juróom ni ko dee ko jox ku fi nekkal sëriñ Touba mu di ko def ak moom bu mu gisatu sëñ Fallou mu di ko jox sëñ Abdou Lahad ba bàyyi ko fi moom sëñ Fallou moom itam mu jël ko di ko jox sëriñ Abdou Lahad ci biir xilaaf ak sëriñ Saaliwu ci la yokke moom sëñ Fàllu liggéey bi boole ci bokki sëriñ Tuubaa yëpp bi njabootuk sëriñ bi di dem di fi bàyyi seenu njaboot muy def su joxatee ki fi nekkal sëriñ tubaay ba noppi tànn nag li dalee ki fi nekkal Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci sëriñ Mortada kenn ku nekk ki la fi toogal mu jox ko sanda bi wayjur bu noppee it jël xalifab Maam Mor Jaara ba ci xalifab sëriñ ma sàmba kenn ku nekk mu jox la ndabi say wayjur jëlaat daaree alxuraan yi ni mu ko daan defee sa bokki bopp yi nga gën a xam sëriñ abibum sëñ fallu sëriñ am satum sëriñ Chouaïbou sëriñ alaaji mbàkke moom sëriñ Moustapha Absa sëriñ koom ñoo ñooñi sëriñ Mamor moom sëriñ falilu bool yooyu ñu daan jox daare yi yooyu lañ fi daan indi tey nag booli sëriñ Abdoulaye yi lañ fa indi neena mi ngi ñaan ci barke liggey bi seigne fallu santane won lepp luy seyene ci liggeyel ko Serigne Touba ci Cheikh Abdoulahi nga am ci lu kawe sa ndort neena dal mom lim ci fas ci liggey bi ni mu tollu ak li jox xalifa général bu ndut ak ñepp tabal na ci bir yow nga ni nik li nga bëgg liggeyel liggéeyal Serigne Touba dara bañ la ci recc tandam lo ci am mu yok te sa fan guddu te nga wër neena itam mi ngi sakku ci sa barke nga ñaanal ko itam mom itam wir ak tawféex yi at mu ne mu gëna sering mën Serigne Touba bi xamna sa sa ak mom japp gi nga ko japp ak téy gi nga ko téy lolu kenn nattableetu ko yëkëti nga sa jëmi bop yi indi ko ba ci kërëm nga lému ko ñaanal ko fa ca néna kon mi ngi lay xamal ni wéré di moo ci tank yi kon bool yu jëk yi moko yëndil bopam ngir sa digg ak mom ak japp gi mu la japp sa digg ak Serigne Touba kon booli Cheikh abdullah ngi di bool jëk yalla na fi ñew ay yoon yoon te fekk la fi te bi woyef toy wala bok mu dis gan te serigne bi jappale la ci ndax yan bu woyef moy lu ñuy teggi rek waye na dis gan na bari lool te serigne bi jappale la ci ba do ko yek ci barke Cheikh abdullah dara bañ la xuri dara bañ la xusi dara bañ la gar liggey serigne bi attan nako ko ko serigne bi def sagu murit yep nga sagub taalibe yëpp nga sagub penc mii nga sagub sagub Tuubaa nga te loolu may wax nag lu ma dund la ndax xaw ma ko tey kër gi sama kër a bi ma fii sosi machine wal baa ngi fii ci kër gi kon du kër gu ma xam tey kon ñu ngi ñaan ci barkeb sëñ Abdoulahi loo bëgg a defal Serigne Touba nga am lu kawe sa njor waaye moom nga ñaanal ko bu ñu jógee fii daal wéré di yëpp teggiku ci kawam te lim yéenee liggéeyal Serigne Touba mu am ko fi la teg mënees koo wax li mu waxoon yëpp ni naa ko wax ci sa jëmm. loolu lépp lu ci bari fàtte naa ko ngir bariwaay gi. ak yéeneem ak mataleem ci sa jëmm. waaye nee na daal li mu xam mooy bool yi nga xam ne ubbeeku na tey ci Sëñ Abdoulaye yi jëm si ci yow nee na mi ngi ñaan mu doon ndox mu sedd guyu te itam defal la tawféex yi barkeb Cheikh Abdoulahi booba ak ngërëmam la ak ngërëmul njaboot sëñ Tuubaa yi nga dajal woon yëpp nekk ci sa kanam te nga jariñoo ko ci barke Cheikh Khadim ñun tam ñoo ngi koy sàkkul nga ñaanal ko lool mu wér te liggéey bi muy liggéeyal sëñ Tuubaa am ci lu kawe njortam kon euh, duuseen la duuseen bu ci ne am na bool bu ci ne am na kubéeru boppam muy duuseenu bool ak duuseenu palaat loolu lay def xalifa njabootu sëñ Tuubaa gépp loolu it moo fi egsi ci biir kër gi asalaamaaleykum wa alhamdulilah sëñ Modou Habib nee na sëriñ Fallou Fall yàlla na nga ci dajeeg ngërëmul sëriñ bi liggéey bi. amiin mooy kër Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké min mujj a nekkoon xalifu Cheikh Mouhamad Lamine Baara nekkoon it xalifa Cheikhul Khadim ñu gën koo xam ci sëñ Cheikh Matilay ci ñenn ñi ab xalifaam Cheikh Moustapha moom Cheikh Siri Mokhtar fa lañ jëm nii. itam daanañ ko indi at mu mujj mi sax bi ñuy dugg si lañu ñu dajeeg yow génn ci kër gi boole nag moo nekk nii. sëriñ Ahmadou Mokhtar mi xalifab sëriñ Mouhamadou Moustapha mi jëkk doon xalifab sëriñ Touba ci moom lañ jëm nii fas yéene jox ab liggéeyam. niñ xeyaat koy leeral rek xanaa mooy sëñ Fallu woy juram ñu ko wax sëñ Asan Mati Baal moom la sëñ Fallu Mbàkke digaloon ni ko sëñ Touba nee na ma naa la digal bis sëñ Touba bii nga di cëndi ay ndab mu jël ndab yi di ko ndil sëriñ Falilu mu ne ko nag soo ma gisatul ku fi nekkal sëñ Touba rek. mu jël ndab yi di ko yëndil sëriñ Abdou Lahad moom sëñ asan ba bàyyi fi doomam ji sëñ Fallou Fall sëñ Fallou Fall dale ko ci sëñ Abdou di ko jébbal ñi fi nekkal sëriñ bi bi ñu demee nag ci at mu mujjum sëriñ Saliou mu xalaat ni na ko yaatal boole ci bokki sëriñ bi loolu moo sabab at mu ne ginnaaw bu ñu dox joxee ndab yi ki fi nekkal sëriñ Touba ndabi sëriñ Touba yi ba noppi jël nag li dale ci xalifa Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci xalifa Serigne Mourtada kenn ku ci nekk ñu jox la ndab yi nga fi nekkal jëlit xalifab Serigne Mor Jaara ba ci xalifab Serigne Massamba kenn ku nekk ñu jox la ndab yi nga fi nekkal jëlit sa bokk yi sa rakk yi ne ci dëkk bi ñenn ñi yor ci daaray alxuraan dale ko ci sëriñ Abibum sëriñ Fallilou ak Serigne Mamorum Serigne Fallilou sëriñ Xamsatum sëriñ bu sëriñ Alaaji Mbàkke sëriñ Basiiru koom loolu ab tàmbili la ci ñenn nat ñu yor daara ci biir dëkk bi kenn ku nekk it ñu yóbbu fa ay ndab yoo xam ni eh, ndabi daare alxuraan yi lañ ko tuddee tànn ko muy ay boole palaat yu wuute yii kër yu mag yi na kër guddi ne ñoo indi fa douzaine bi jox ko ki fi nekkal kookee ca sëriñ Touba yii nag mooy dabi Cheikh Mouhamadou Moustapha yi ñu fi daan indi moom lañ la laatal tey ci barkeb sëriñ Touba Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi itam yaram wa dafa libbër sonal ko lool daanaka lépp juróom-benn weer fi mu ne nii tànk yi dox bu sooxe lay dox ci métit dem na fu nekk nag ci hôpital yeeg docteur yi waaye ñu seet wet yëpp nag ni gisuñ ci genn anam terewul muy metti léeg-léeg ak muy soox ñu bëggoon nag ci seen barke itam ak barkeb liggéey bi ngeen fasal ko wér ak kàttan goo xamante ne bi lim yéenee jëfal sëriñ Touba dana ko man tam matale ko ci barke Cheikh Khadim loolu rek moo doon tànki ak addiya yi mhm. mhm. lu fas si kër sëriñ Ibrahima Mbacke moom sëriñ Abdoul moom Serigne moom Cheikhul Khadim ki ko fi nekkal mooy sëriñ daam Atta Mbacke moom Cheikh Ibrahima Mbacke ci moom lañ jëm nii fas ko yéenee jox liggéeyu boole ki ñu fekk mu nekkal ko fi mooy sëriñ daam Atta Mbacke moo toog ab toogaayam liggéey bii mooy liggéeyu sëriñ Tuubaa bi nga xam ne dañ koy jox xalif général de Mouride buñ ci noppee nag dale ci xalifub sëriñ Mouhamadou Moustapha ba ci xalifub sëriñ Mourtada kenn ku ci nekk ñu jox la ay ndab. muy sa wàll ci liggéeyu Serigne Touba bi Cheikh ibrahim di liggéeyal te Serigne Fallou Fall mu sañoon seen mitibaal di ko joxe dale ci khalifa Maam Mor Jaara ba ci khalifa Serigne Massamba ak lenn ci daara alxuraan yi nek ci biir dëkk bi. bi ñu andi fi nak ñu ko andi Serigne dam Atta mi nga xamni ñëpp xam nañ ko ci pasteefam ak dimbali taalibe yëpp ci biir liggéeyu Serigne Touba bi kon moy ki fi nek Cheikh Ibrahim lii mooy cërub Cheikh Ibrahim mom mo fi toge jotaay Cheikh Ibrahim. mooy liggéey bii ñu fendi kon ñu maase ñun ñëpp ci ñaanal ko mu gudd fante te wér te liggéey bii mu fas yéenee liggéeyal Cheikh Ibrahim li mu ci weesu woon mu am ci luwaat lu ko fawxa ci kanamam ci barke Cheikh Ibrahim yàlla nag ko sëñ Tuubaa defal te bàyyi ko ci suñu kanam nag te mu wér te tal ko te ànd ak kàttan ak ngërëmul Serigne Touba kon ñun ñëpp ñu maase ci tàllal loxo yi mu dolli ñu ñaan ak xéewal ci barke Cheikh Ibrahim jërëjëf rabbi bima yasrahu alhana falfaja bi jaay adali nga ñaanal ko bu baax nee yaram yi fan yi da koo xawoon a liberté ah. bëgg nga ñaanal ko bu baax rek waaw nuyul ma ko rek ne nañ ko jàppe woon rek moom yàlla na ko yàlla may wér rek ak yokk fanam xam nañ bu baax pas pas pas liggéey bi muy demee damaa dem bay génn rek ñu wax ma ko ma daa kon a baax jërëjëf ziar ne ko ñu ngi koy la allah danaa fexe bi danaa fay maa ngi waxtu bu ne ma ne danaa fay ñëw dama koy bañ sonal noonu rek waaye yëg nañ pas pas beeg lépp yàlla na ko yàlla sàmm ci barke ma am baax jërëjëf ne ko jot nañ lépp امين مجد امين يا رب امين يا رب امين يا رب امين يا رب امين امين يا رب امين امين amiin yàgg fi loolu it mooy sëriñ maam Mor moom lañ jox léegi ay ndab yi Cheikh Mourtada moom Cheikhul Khadim moom itam moo di xalifaam jox nañ ko liggéey sëriñ Tuubaa bi